xibaar yi daanaka digg bëccëg gi lay doon ci li nga xam ne mooy Aladji Malick TV li ñu ci njëkkee bala noo dem ci li nga xam ni mooy ñancoo Sadio Mané dañuy njëkkee ci Messi mi nga xam a ne footballkati Panama yi nga xam ne ñoom la doon dajal ci match boo xam ne bu am solo la goney Panama yi dañoo fàtte woon ne dañoo amoon match ndax daanaka dañoo wutum ndiiraan ngeen gis ci nii dem kott ki nga xam ne mooy Lionel André Messi jàpp ni mooy seen idole ñaan ko mooy photo woog moom daal di jabasa lépp nag mu nekk ci xeetu football yoo xam ne daanaka Messi fa na wala ngal kàpp moo jaaxal gaa ñi loola tax daanaka Panama ah, tey jii belli nan ah, ci li nga xam ni mooy match boobee nga xam ne ñi ngi ko doon am ki nga xam ni mooy Messi daanaka ndax duñ wax Argentine ndax Messi moomee moo jaaxal gaa ñi Sadio Mané ñancoo tey ji jii ah, ci kanam tuuti bu 19 heures jotee devant les caméras de RTS war naa laal ak équipe bi nga xam ni mooy Mozambique match boobee 19 heures pile compo bi nga xam ni nag probable la maanaam moom lañ yaakaar ni Aliou Cissé du ko may compo boobee moom la ñu bëgg dikk yéen ci li nga xam ne moo am solo bu baax baax am na ca solo Sadio Mané ci côté càmmoñ gi nga xam ni euh, premier match am ginnaaw bi nga xamee ni euh, gëj naa football Sénégal mu toll daanaka ci lu toll presque euh, juróom-benni weer war na koo jege wala mu ëpp ko Iliman Ndiaye mooy ne ci côté ndijoor bi nga xam ni loolu lanu belli ki nga xam ne mooy Abdou Diallo nga xam ni daanaka wala Abibou Diallo nga xam ni moom moomee mi ngi toj fi mu toll nii championnat France bi nga xam ni ci Strasbourg la nekk di dugal bit yoo xam ni yu am solo la digg militaire bi nag ñu mën cee yebbi ki nga xam ni moo nekk kii di Pathé Ciss nga xam ni digg militaire boobee dana ca baax loolu bu randutoo ci défense bi Koulibaly ma nga ci biir di doxal ministre de la défense taxaw nag ni jonn la ci beneen côté bi Abdoulaye Seck tamit match boobee dana ca bokk ak ki nga xam ni moo nekk nduur bu dee digg militaire bi waxoon nañ Pathé Ciss Idrissa Gana Gueye moo koy accompagner ak ki nga xam ni mooy Pape Matar Sarr Papito bu ko defee ñu téye li nga xam ni mooy digg militaire bi doxal fa gaa yi doxal ci kaw bu ko defee ñu mën a noggatu gone yi nga xam ni mooy ñu Zambik bu 19 heures jotee ci digg terrain bi nga xam ni RTSE mooy filme match boobu en même temps moo koy teg en direct Alhaji Malick